naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay mbokk yi seetaan Equivox salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo la chaîne à portée de main Equivox TV Babacar maa ngi lay siyaar. maa ngi lay fay Abdou. nag euh, talaata ji. ñu ñëw euh, ñu yeewu ak làmb ji daal di sàjji. Mhm. affaire yooyu noonu. su defee ñu daal di dem seetaan revue daal di dellusiwaat ci plateau bi ànd ak sunu xarit sunu mag Babacar. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mardi 13 juillet 2021 dañu ñëw ak ñu ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu lamb nag mu xëy tey xëta mu njëkk wanate ñu combat boo xam ne ni daal fi mu nekk nii ñu nga muy diggante Balla Gaye numéro 2 ak ji mel ni ki yëglikaay bi daal nee na maanaam fas à boo xam ne tànga noon tàngoon na jër démb moom moo amati woon ci diggante ñaari mbër yi nga xam ne moo di Balla ak Bombardier Bombardier moom nee na maanaam wàllum peloton ci ci côté moom bu ko kenn xalaat maanaam nekkul jaarukaayu kenn koo xam ne ni daal da ngaa bëgg a jàll te itam pare na ci wàllum xeex bala ne ko lu mën a xew daal jàppal sama revanche moom dama koy jël par force loolu moom mu lay neex mu lay naqari doo ci man dara dara dara jël ko par force daal laay def ba tey bu nu continuer ci boobu combat mel ni ki nag yëglikaay bi xam nañu ne daal Balla Gaye numéro 2 moom bu bëggee dégg dig daal maanaam démb wàllum mystique moom bàyyiwu ko ginnaaw ndax gis nañ Thierno Gueye mu yor ay butéel solu mbaxanaam mel ni ki daal ko fi mu nekk nii moom combat ba coow laa nga ne ca gàdd beneen combat boo xam ne ca bés boobu lay am muy Forza ak Pakala ki nga xam ne moo di Forza moom la mu xamal Pakala ne ko soo bëggee daal maak yow danoon defante te bu ñuy defante suñuy reliquat nan ko jël ñu teg ko nga xam ne ku daan danga koy yóbbu pakala ne ko daal li am ba des loolu lépp yaa koy wax waaye jàppal ne man moom la ma la defoon mu ngi fi ba tey te itam ci wàllum xel ak xalaat fi mu nekk nii màgg naa ci bu baax a baax a baax ñeneen ñoo xam ne fi mu nekk nii moom seenum defante tamit mu ngi ne gadd ci yëglekaay yi moo xam Equivox TV la Lutte TV Leewtoo wala fu mu mën a doon muy wasaare ak feneen foo dem yaa ngi fay fekk Siteu ak Papa Sow coow nga ne gadd Papa démb moom moo daloon presse ba papa nag moom mu ngay dànkaafu Siteu ne na ko li am ba des daal soo bëggee dégg dëgg moom man ci côté moral dama caa pare mental pare naa ci kon nag booye boo daal nga waaj te xam ne li lay xaar sama digganteeg yow moom jàppal ne du nekk loo xam ne nii luy neex la ci yow loolu mooy waxi ki nga xam ne nii moom moo di Papa Sow ci ki nga xam ne moo di Siteu lam ko wax tamit ne na ko soo bëggee dégg dëkk sama digganteeg yow bu ci dugal Modou tey bu ko ci dugal suba ndax nag aw yoonam newu ci ndax buñ ca yeggee man ak yow jàppal ne géew ba ñun ñaara ciy ne nee na ko daal maak Modou Lo nag lanu seq moom ban ko seqee tey yàgg na te itam ñoo bokk gox bu nu dëkk muy parcelle te ay at a ngi ñooy ànd di liggéey ci wàllum làmb muy ay contact lépp lu mu mën a doon ñoo ko séq donte nag yaag moom wàllum deret moo leen boole wala yeneen mbir waaye nag jàppal daal yoonam nekku ci danoo ànd di liggéey maa moom te dañuy continuer ànd di liggéey waaye géew ba papaane na setta daal li am ba des moom soo bëggee dégg-dëgg man ak yow dongay jàmmaarloo ca géew ba kenn du fa dugg te bu keroogee lu waay man def ko sa moroom te man la ma la waxoon naa moralement loolu sama ay wax waxi papa Sow la ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb ba tey moom sunu làmb moomu am na beneen xale boo xam ne ni moom pare woon na kër dimanche moralement mentalement ba daan ak itam physiquement muy caat caat bu booy bambara nag ginnaaw ba mu daanee ka nga xam ne moo di moo jabu yoof moom caat moom ay waxam làqu ko la mu waxoon keroog ca plateau Equivox suba daal moom la xëy dëggalaat ci sunu làmb nee na daal li am ba des daal moo xam saa Thiès la Garga Mbossé Moussa Ndoye ak Malick Niang caat ne na ñeent ñi daal ku ci ñëw ma lekk sa avance te kenn mën ta wax ba ma bëree keneen ci làmb ji si ñii caat ne na leen daal yéen ñeent moom jàpp leen na fu ngeen mën a ne ci làmb ji yéen laay wër ngeen xam ko ngeen bang koo xam loolu moom mooy li am waaye njàppandal production moom yëglikaay bi xëy na tey wax ñu ne daal décroché nañ benn combat boo xam ne daal moo war a dox ci diggante gambien ma ngeen xam te mu bëri bëri ki dem bu yàggul ca mbuur ak assurance ñàkk combat ba mook Siteu bu Kaolack daal la ñu euh, taxawal yëglikaay bi xëy na tey wax nu ko wan ñu aw photo keneen koo xam ne dafa génn àddina te bokkoon ci làmb nekkoon mag moo xam ne ni daal ku baaxoon la ne nekkoon ancien lutteur yëglikaay bi ne assurance Malick Diop daal décédé na dimanche ji nu génn waaye yëglikaay bi dikkaat na ci moom ci waxtaan woo xam ne yëqoon na ko fi lu yàgg yàgg yàgg boo bëggee dégg dëgg mu nga tombé woon euh, euh, samedi la wala boog yëglikaay bi dikkaat na ci que sequ nag moom waxtaan nag ay satu Faye madame ñaa ca jamono yoo xam ne mu nga woon ca sunu làmb moom assurance Malick Diop dikk na ci lu yaatoo yaatoo yaatu ci carrière am fam ca jaar ak la nga xam ne nii daal moo ci jot a am waaye nag ne na kasem bu mag bi nga xam bi gën a rëy ci nga xam ne moo doon carrière am daal na ko ko ko faloon ko ko ko fayoon moo doon Alassane Ndiaye alu ne na moo ko fayal cinq cent mille francs maanaam téeméeri junni ne na daal jamono jooju moom ne na loolu nekkoon na loo xam ne ni daal lu réyoon la wala boo kasa bu magoon la ci moom jamono ja nga xam ne ñu ngi ko ko doon fay muy bëreeg mbër mu ñu doon wax foo Fodé Diouf ñëw na tamit ca la nga xam ne ni amoon na ca Fass maanaam ba ñu tojee la nga xam ne ni moom moo doon arène sénégalaise ba nekkoon ca Fass ne na muy moom di maam Gorgui Ndiaye di avec Risnia ak ba ci Boy Bambara ne ñoom daal la ñu defoon mooy organisé woon marche daal dox ñaxtu ndax nag jàppoon nañ ne loolu jamono jooju ñu koy def nekkuloon loo xam ne lu tegale awoon woon ci aw yoon mel ni ki daal ku ubbi sunu làmb moom tey di nga fa fekk waxtaan wu yaatoo yaatu woo xam ne daal riis na lool ko ko fa wax nag du kenn ku dul koo xam ne nii moom moo di assurance Malick Diop mi nga xam ne ancien lutteur la génn àddina bëri dem ci dimanche ji nga xam ne moom la ñu génn keneen koo xam ne mu ngi ci sunu làmb ci seen rubrique ba ñuy wax Leewtoo fa lañ ko xëy dalal muy Jacob Balde Jacob moom que mu xëy tànn ci mbër def ko référence am du kenn ku dul Balla Gaye numéro 2 nee daal mooy lutteur préféré moom Jacob Baldé loolu la xëy tey wax nu ko ci sunu lamb ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi wala boog nu dem les arènes les arènes tamit bu fa duggee lan fay fekkati mooy Yékini wala boog kan fay fekk mooy Balla Gaye Bombardier Yékini ne ca digg ba mel ni ki nag Yékini combat boobu moom dañ ko caa tudd coow la ne ca gadd mel ni ki nag la tax ñu tudd ci Yékini daal yëglikaay bi ñëw na ci Amadou Kati Diop moom nee na loolu moom nee na am ba moom droit ànd ak moom te itam daa jàpp ne digganteem ak Bombardier seq nañ loo xam ne tey bu leen neexee maanaam ci petite côte bi ne na Yékini tey li mu def ci làmb 15 yoo xam ne daanuwut def li mu def tey mu bàyyi làmb nekkatut ci làmb ne na bu ko neexee mook Bombardier ñu kiri seen ab écrit def ko seen écrit boo xam ne petite côte bi la ñuy taxawal di ko représenté ne na loolu moom yoonu kenn newu ci te itam Yékini ku ko neex am na droit jàppale ko Kati Diop moom moo gisee nu mel ni kii noonu waaye nag yemu ca de ne na Balla Gaye numéro 2 moom ne na loolu su ko bëggee bañ kati la mu jàpp mooy ak soxor dong la ko gisee waaye du leneen leneen loo xam ne daal gis na ko ci lu dul soxor moom nee na du doon loolu booy kayre moom ne na Yékini sax moom ku ko tudd da koy tooñ ndax moom dafa nëtër mu nga toog jàpp njàmburam jàpp le jàpput ci leen maanaam daal mu nga toog ci ruqam jàpp boppam moo tax daal Boy Kayre moom jàpp na ne ni moom neutre daal la def yëglikaay bi di les arènes moo xëy tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noonu ba tey les arènes dikk na ci loo xam ne nii daal bu bëggee dégg dëgg ba tey Balla gay 2 mu nga continuer di ko wax ne roi des arènes ak Modou Lo ga daal Balla nee na daal loolu moom Modou loo na ko leer na man Balla Gaye numéro 2 Modou loo du sama roi des arènes Balla daal waxam jooju mu waxoon ba tey dem mu ngi mu nga continuer di ko dëggal Papa Sow tamit digganteem ak Setta waat ya mu waatoon ne ko dama lay daan arène papa ñëw na ci fa nga xam ne nii moo di moo di les arènes di ko fa leeral mel ni ki daal papa Sow daal démb soo bëggee dégg dëgg mokk nga xam ne moo di Modou Lo Fra ak ka nga xam ne moo di góor a soog garga deux ak ña leen di ne moo xam Lato la moo xam la Diouf la ak coach sukka daal daa mel ni daal ñoom ñu ngi ca liggéey boo xam ne ni daal ñu nga ànd ak Papa Sow di ko pousse pour le premier août bés bu jàkkaarloog Siteu daal Siteu am lu ko naqare naqaree naqaree mel ne ki daal boo bëggee dégg-dëgg kon fi mu ne waa parcelle moom takku ba dëgër la ñu def takk seeni jaaj ngir nag fas yéene ñaanal ka nga xam ne wala jàppale Papa ci entraînement ak lépp lu mu laaj ngir mu mën a daan Siteu jàll dal di dem

kenn koo xam ne nii moom ay adversaire lay xaar muy jën kayre ginnaaw ba mu daanee Moodu Anta les arènes dikk na ci nee na ay potentiel adversaire am daal fi nekk nii yëglikaay bi ñëw na tey nee moom lay xaar fi mu nekk nii moom jën kayre yemu ca dikk na ci palmarèsam di victoire ya nga xam ya nga xam ne am na ko maanaam fukki ndam ya mu am ci palmarèsam ak itam trois défaites ya nga xam ne dab na ko ci biir làmb ak benn match nul diggante ma Queens yëglikaay bi di les arènes moo ca dikk bu nu continuer dem ca Lutte TV wala Equivox ak feneen fu nu dem rek ci yëglikaay wala ña nga xam ne ñoom ñooy internet ba dikk nañ ci Siteu ak Papa Sow ak Papa Sow ma nga xam ne dëmb fekk nañ ko place bi si yow mu nekk ci tàggatu goo xam ne bu méttee méttee méttee la ànd kook ñoom Modou Lo mel ni ki nag moom papa moom la mu ne daal nee na moom lu mu ci mën a doon làmb ji fi mu nekk ni moom wax ji da koo jëratul ndax nag pare na tey itam la muy def teg na ko ci aw yoon te itam ne na ab gàttaayam wala lu mu ci mën a doon ne na loolu moom bokkul ak dara dara dara dara ak combat bi ndax papa moom jàpp na ne moo xam Modou Lo la wala muy Franc wala muy Gora Sock wala kum ci mën a doon ba ci Garga 2 ne na ñoom ñii ñëpp daal eh, ñoo ànd ñu ànd di liggéey te itam ne na loolu am nañ ci droit ne na nag loolu tekkiwul na ñoom bu arbitre buy sofle dañuy wàcc ci géew bi ne na Siteu maak yow jàppal ne ñooy wàcc ci géew bi kon Modou Lo moom ku ko tudd moom da nga koy tooñ kon papa daal jàpp na ne moom moo Siteu dong ñooy bëre waaye leneen loo xam ne nii daal aw tiis la dal ci sunu kaw dal ci tout la presse mu mel ni ki nag ki nga xam ne moo di sunu mag di sunu confrère nekk ca sunu làmb di Iba Kane way juróom bu jigéen moo génn àddina bëri ki démb ñu ko doon wax soxna Fatimata kan mel ni ki nag dimanche ji nu passé la loolu am tey nag mooy nekk ñeenteelu fan bi nga xam ne nii ci mardi ji ñu ngi koy ñaanal fa nga xam ne moo di ca ginnaaw raay ñëw na ci ca tuus ya mel ni kon jur Iba Kane woowu ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana ndax Iba Kane wayjuram suñu jur la ndax suñu mag ju baax la te itam ku ne xam ne ci wàllum làmb yàgg na cee liggéey ak sunu làmb di ci bind lu ama am solo kon loolu daal lañ leen di tàggoo tey Babacar ginnaaw bu ñu seetaanee revue daal di ñëw sunu làmb daal di ñëw ak ñun ci xëtam bu ñett ci xëtam bu njëkk mardi 13 juillet 2021 sunu làmb daal di ñëw ci ki nga xam face à face bi nga xamante ni moo amoon démb ci diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xamante moo moo di Bombardier maanaam show bu tàng tàng tàng lañu gis démb fële ci xamante ni moo di TFM. waaw show bu tàng parce que bon ñoom ñaar comme li may wax rek. ñaar yi mépp fit lañu. Mhm. ñaar lañ ñoo xam ne ku ci ne ci làmb liñ la xame du deltu ginnaaw. ku ci nekk yaakaar nga ne adversaire boo jàkkaarloo. da nga koy effacer jàll. moo tax seen jàkkaarloo fu mu mën a doon ci wax du neex. bu ñu bëri tamit noonu lay demee a ah, day tàng ah Bombardier buñ la ne buñ la du du peloton du jaarukaay. te itam na pour bagaar. loolu yëpp maanaam moo lay wan ne ñoom ñaar fi mu nekk nii. pare nañu na na par force day jël tamit revanche am loolu yëpp moo lay wan ne li ma la xal rek ñoom ñaar ku ci ne actuellement danga nga pare pour wane sa bopp bu bés ba jotee di la 31. li may ñaan nag mu yegg ci jàmm rek. incha allah fan la di mu jikki ba ñu yónni yàgg comme daal jël li moom xalaat naa dana ca am. Mhm. incha allah rabi te jël ba mën naa rëy lool. mën naa mu daanu it na ca am nag. bu ko ci génn doo ko ci génn mhm. ba tey ñu des ci combat boobu nga xamante ni moo war a am le 31 juillet ki nga xamante ni moo di Forza je vais je mais mi ngi daan mi kaafu ki nga xamante ni moo di Pakala je vais te battre bu leen ne waa mbër yi de des ñu ne la bu la neexee sax suñu ne likaa ñu teg ko mhm. waaw mbër yàgg na ko yàgg na wax loolu bataille de communication la mais bon li am solo fu comme abab tamit revanche la ah mhm. Pakal ak mhm. ko ki nga xam ne moom moo doon euh, Forza Pakal la daanoon ko te yàlla di dox àddina di dox ba ñu tëggaat seen combat defe naa ne tamit muy combat boo xam ne kon revanche la boo xam ne daal te lamb revanche da caa bokk ndax da koy neexal dinañ xool ndax Forza day jël revanche am ni mu ko waxee wala boog la li mu wax ne moom mentalement màgg na ndax day continuer ca màgg googa maanaam wanaat forza ne nekkoon la ma la defoon tey la wàlla gën a aay ba tey dama la waxoon rek dañuy yónni yàgg rek yàlla nañ fekkee te tal amiin Babacar ki nga xamante ni moo di Papa Sow di dànkaafu ki nga xamante ni moo di euh, sita moralement je suis bien mentalement je prêt waaw loolu boo ko déggee ça veut dire que moom fi mu nekk nii amul lenn loo xam ne nii ci côté moral wala mental maanaam ci xelam ak boppam ak lu muy xalaat. Mhm. parce que moom moo wax loolu parce que Papa comme li ngay li ñuy wax rek mbër bu mag la ci làmba tey. am na ci xam-xam bu yaatoo yaatoo ndax keppaar yi mu gémmee ci làmba la mhm. kon defe naa su waxee loolu am na fu ko teg loolu moo lay won ne tamit digganteem ak Siteu mhm. ah cun lii baax lay doon du am roq bu sedd am roq la <laughs> eh. may ñaan yàlla ñu fekk ko di nationale lu doy waar lu yéeme Babacar wallaay man maa la wax lii parce démb yaa maa ngi yow a ànd. Mhm. dañu décider de. dañu dañu pare sax Babacar. dañu décider dañu pare. dañu décider mhm. lool lool te décision boobu ñu amee. Mhm. yaakaar naa ne boo demee ci tarkindaa itam. décision bu mel noonu nga fay fekk. dëgg la kon defe naa ne ku bëgg ku bëgg ku ko wettali. ku ko wettali buntu bi du leen mës a boole. du leen mës a boole Babacar ba tey ñu des ak sunu làmb ki nga xamante ni moo am ndam euh, dimanche bi ñu génn mu di caat. Thiat liste ses potentiels adversaires maanaam ki nga xamante ni moo di Sa Thiès Garga Mbossé Moussa Ndoye et Malick Niang waaw loolu moo lay wan ne làmb loo gën a boo daanee rek da ngay gën a teg ay pas d'avancement mhm, mhm. parce que caat boo xoolee mu ngi ci benn dynamique yaa ngi dégg mhm. euh, euh, euh, armée la mujjee daan ci arène nationale boobu la ko daane tey mu ñëw tegaat ci ki nga xam ne nii moom moo di Euh, Modou Dia defe naa kon tey tamit wax dëgg yàlla am na droit kat taxaw ne Sa Thiès Garga Mbossé Moussa Ndoye ba ci Malick Niang kaay leen ñu bëri parce que làmb tamit noonu la waaw dug manche dabante la yaa ngi dégg te kuy daan di continuer bu yàggee di nga dab ñi nga xam ne ñoom nga bëgg a bëreel te itam ñoo ñu bëgg a bëreel ah yaakaar naa war nañu mën a taxaw nag xool est-ce que ñoom pare nañ pour bëri ak caat wala loolu tamit fa la question bi waaye daal xam naa ne moom mu ngi ci yoon woo xam ne ni bu ko wàccul moom caat mhm. ah ci kanam tuuti dina def lu doy waar ci lamb ndax li ma gis mu def bëri gi démb Abdou mhm. loolu moom yëfi mbër dëgg la def bëri gi démb ba daal waaw <laughs> kon nañ ñoo ni yàgg bàyyi di di di di seetaan lamb waaw insha allah rabbi mhm. envie féroce de revanche de de se venger de Bombardier Balla Gaye 2 mobilise une armée mystique waaw parce que loolu moo lay wan ne kon combat bi li ma la waxoon la rek. Mhm. combat bu ko ñor la ah moom Balla. parce mhm. que euh, bon mystique bi tamit da cee bokk. Mhm. te làmb dafa am mystique. yaa dégg comme daa nag ah li ma la wax rek waaye xam naa nag dinañ dem ba benn moment ci biir làmb mystique dootul compter waaye nag dafa bokk si làmb waaye Balla ku ne xam na ne talent bu bëre am na ko. Bombardier itam am talent moo tax mu nekk roi des arènes deux fois. bay xëccuwaat bëgg a nekk troisième fois roi des arènes. sunu làmb daal di ñëw ci ñun ak ki nga xamante ni moo di assurance Malick Diop décédé dimanche dernier le retour sur le parcours de la terreur de 1954 à 1975. waaw loolu moo lay wan ne jamono jooju ah am na lu mu def si làmb mhm. assurance Malick Diop ñu ñaan yàlla xare ko aljana mhm. euh, te yéexinu parce que boo xoolee waxtaan wi ay Aysatu Fay la ko séqaloon mhm. man dañ ah, kon moo lay wan ne ay waxtaan wi xaw na yàgg ndax Aysatu ay at a ngi mu jóge woon sunu làmb ba tey mu ngi nekk les arènes mu mel ni kon waxtaan wu la ñu indiwaat tegaat ko mu nekk waxtaan wu am solo ndax ñëw na ci parcours am fi mu jaar entre 1975 1954 ba 1975 nga ñëw na tamit ci kasim bi gën a seer mhm. moo lay wan ne kon làmb defe naa li tey jàng ko mhm. xool moom li fi mu li mu wax mhm. ak fi mu jaar dana bëri ñu mu servir leçon en commençant par man ak yow ak ñeneen ak ñeneen parce que tamit mag la woon moo xam ne am na lu mu def si làmb am na fu mu jaar si làmb te defe naa kon bu ñëwee tey seq waxtaan wu yaatu wi ak yëglikaay bi di sunu làmb ñu indiwaat waxtaan wi lu ama am solo tey génne na fii ñu koy ñaan yàlla rek yàlla xeppee aljana ba tey euh, Babacar ñu des ak sunu làmb euh, choc de génération pour la saison prochaine jàppandal production décroche Siteu bu Kaolack et Gambien. waaw loolu day jàppale production moo ko tëgg. Mhm. Kaolack euh, Siteu bu Kaolack xam nañ ko Gambien tamit ñëpp xam nañ ko. mu ko ma boo xam ne. ah bu ñu nee soog maanaam ci ay génération mhm. parce que xam nañ ne Gambie mu ba muy siiw di bëree di daal mhm. boobu jéggawuñ si tabu kaw la mhm. kon defe naa tey bu ñu demee ba làmb boole leen mhm. ça veut dire ko mooy li ma la waxoon sànq rek mhm. làmb dug maas dagante la gambien bëri ki dem la mujj bëri ca mbuur ak assurance ñàkk combat bi mais tey amaat na combat loolu la ne moom kon li mu gëm mooy ci làmb ba tey engagé waat na beneen contrat day liggéey waat rek xool li ko xañoon combat mu fexee liggéeyaat ci tey itam ci mu nu muy def pour daal. Mhm. muy làmb joo xam ne ju war a neex lay doon mu Siteu bu Kaolack ak Gambia. Mhm. Mhm. ba tey sunu làmb Papa Sow prévient Siteu Modou Lo naa day renvoir dans ce combat. maanaam yoram newut ci làmb ji. ca làmb ja waaw loolu moom buñ ko dee wax parce que euh, papa boo déggee muy wax loolu xëy na day. du ñàkk ay nit yoo xam ne dañ jàpp ne kat Modou Lo est-ce que war na taxaw Papa Sow ni muy ànd ak moom ñuy liggéey et puis loolu man Babacar dama c'est normal ah. parce que xam nga tax parce que Modou Lo Papa Sow ñoo bokk dëkk parcelle. amoon na benn moment boo xam ne bokkuñu woon fu ñu nekk ci ay écrits. Papa nekkoon na Fass Modou nekkoon na Rock et eh, Modou nekkoon rek Énergie. yaa ngi dégg. bëri nañ sax ñoom ñaar. ci tournoi boo xam ne Gaston Mbengue moo ko tëggoon. mu nekkoon derby bu doyoon waar. Mhm. waaye nag ñuy dem di dem ba ñoom ñëpp ku ci nekk nekk mag nekk kilifa waa parcelle xam ne lii waratu la man a ne. Mhm. ñu fexe ba bëreetuñu. Mhm. yamatuñ ca Papa bi mu bàyyi écurie Fass ñëw ñu sànni Jàmbaar Wrestling Academy. mook Modou Lo ñu ànd continue di liggéey. loolu defe naa kon. Euh, xel mën na nangu ñoom ñaar ñu ànd liggéey. Mhm. loolu bokkul nag ak Siteu relation ba nga xam ne humainement moom la seq ak ki nga xam ne moom moo di Modou Lo dëgg loolu ku ne xam na ne. Mhm. am na te defe naa Siteu ku ko xam ak mental bi mu amee ak ni mu mel. Mhm. defe naa loolu du ko déranger. yaa ngi dégg. xëy nag ñeneen keneen mën na ci wax muy fans wala nangam. mais dama jàpp ne moom Modou Papa moom. ak ñu fekk dem ñuy liggéey mu ñoom garga de grosso ak ay franc ñooñu ay bébé bis mi mhm. war nañoo ànd liggéey ndax ñoo dëkk mhm. te ñoo xam ne du ñu bëree mhm. bokk benn gox bokk ñu leen di jàppale waaye waaye Abdou dañuy rafetal soo mi duggee ko moo mooy yoon sax mbër tey amul mbër muy ngem jàmm gën da ngay bëreeg Siteu. kon bu Siteu amee combat. Mhm. mbër jàmm gën. Mhm. ak ñeneen caaroy. Mhm. ndax dañ koy gis bu amee combat ñoom rëg-rëg. ñoom qualifié numéro 2. ñoom dëgg la mooy yoon sax nag tamit na ko woo ñañ koy defee ñoom ci seen gox. waa parcelle am nañ droit defee ko noonu. waa Pikine tamit noonu la amee droit defee ko. waa Fass ak Dakar noonu la amee ñi nga xam ne sport bi boolewu leen. Mhm. ñu bokk di liggéey ensemble di wuti ndam loolu amul jafe-jafe parce que combat bu amee lii ma ma am yow du dugg ci géew ba ma. Mhm. Mhm. waxaale wu mu Modou Lo. Papa Sow ak Siteu ñooy wàcc ci géew bi. wàcc ci géew Babacar Ndo ah. bu nar a doy waar. bu doy bu nar a neex. bu nar neex bu bu la fa 14h fekkul stade de mat ngaa daal di man la mhm. ah, dañoo mën bis. dañoo mën bis Tarkinda jàmm <laughs> ba tey ñu des ak euh, les arènes moom mu ñëw ci xëtam bu njëkk daal di fësal ki nga xamante moo di Balla Gaye ak ki nga xamante moo di Bombardier waaye ñu gis ki nga xamante moo di Yékini ci digg bi pourquoi Yékini s'invite dans Balla vice Bombardier. waaw ba ba bon loolu li li ñu ci wax rek mooy comme li mu ñëwoon sànq di koy. Mhm. ci Modou ci Modou ak Papa Sow. genre boobu ngay gisaat parce que Bombardier bu tuddee Yékini mhm. euh, ba mu am ay affaire yu mu indi wala jàppal bàyyil. Mhm. ñu di ci wax. comme li Kati Diop wax ci benn côté da beneen si moom tey Bombardier Yékini bëreetul. bàyyi na làmb. yore Faata production. dëkk ci petite côte bi Joal. ak ay Fadiouth ak zone yooyu. Euh, tey am na ak Bombardier ay relation ndax man daaw. Yékini tëgg na làmb mbuur mhm. Bombardier sol la ñëw te Yékini moo ko invité woon mhm. ma laaj leen ñoom ñaar ci seen jaar Yékini ne ma loolu sport la woon passé nañ ko mhm. kii suma rakkal suma xarit la kon ñoom ñaar actuellement ñu ngi amee benn relation boo xam ne relation bu fort la bu la relation boobu nag ñoom ñaar am na droit Yékini te am na droit Bombardier dugg ci làmb mu jàppale ko am ah. dëgg la parce que bu fekkente ne ay xarit lañ da ciy am droit te wax na loolu man ci sama micro maa ko dëkk micro yi ki ñu wax loolu mhm. kon defe naa loolu xel war na ko mën a nangu mhm. yaa ngi dégg mhm. Balla Gaye numéro 2 am na ñoo xam ne tey su jógee dañuy jóg ndax bu jógee la dagéer de day jóg Ama Baldé day jóg day jóg yaa ngi dégg guy gi day jóg yeneen mbër yeneen mbër yeneen yoo xam ne dañ koy jàppale ngir mu am ndam kon comme li ma waxoon sànq laay waxaat foofu yooyu moom pour mën waruñu sax warul sax nekk débat buy garaaw déedéet non non non Euh, kii nga xamante ni euh, moo di suñu papa Kati euh, Ball peut être jaloux maanaam Ball est-ce que Fira nga jàpp ko. waaw Kati de loolu la gis. Mhm. mais man duma ma jàpp loolu ah. xëy na bon damay jàpp ne rek moom. tey bu bu tur Yékini génnee mhm. Balla am na droit tontu leen mhm. parce que Balla daan na Yékini essaye waaw kon am na droit ne ko kat kooku lay jàppale am na xamante ne ah. waaw mais nag <laughs> bon làmb la mais mhm. Zalou moom man duma ko mën a wax côté boobu parce que li tax mooy làmb la ah waxtaanu làmb moom waxtaanu làmb lay mhm. que tey li doo ko moom c'est eh, vrai Babacar loolu c'est mhm. daal li nga wax rek li nga waxoon sànq ci ki nga xamante ni moo di Papa Sow ak ñoom ñaar moo ci am. bien sûr ak lu lu mënti xew. ñoom ñaar ñoo naan runkum ah, daje. ah loolu daa am mënante ñëw. waaw Babacar <laughs> ki nga xamante ni moo di Boy Kayre yëkkee ni na suucam taxson waaw moom tamit nee na mu ngay seeta léegi nee na jàppalewul kenn mhm. waaw loo ci mën a dégg daal mu jàppale wala mu jàpp bañ a jàppale mhm. loolu yëpp pour man làmb ja la koy jeexal ci ñaari mbër yi lay doon rek mhm. Yékini nag am na droit jàppale ki ko neex loolu moom ay droit am la loolu buñ ko ko privé buñ ko ko xañ bu gisee am na ku mu ko si làmb moo xam Bombardier la moo xam beneen mbër la mu di ko jàppale ci bisam loolu plein droit la yaa moom c'est des parce que ku nekk am na koo xam ne sa nit la si làmb bu bisam jotee da ngay ñëw jàpp ci fexe mu am ndam. Mm-hmm. yaa ngi dégg Balla Gaye numéro de moom yaakaar naa ne tey ci làmb loolu waratu koo jaaxal. te mm-hmm. jaaxalu ko it laa foog. Mm-hmm. yaa ngi dégg parce que li mooy parcours bi mu def ba yegg si fii mu yegg si nii. a ah, defe naa ku bëri Yékini ba daan ko. njëkk a bëri moom nangoo bëri moom ci xale daan ko. ah defe naa loolu loolu warul la yëngal quoi. waaw ba tey sunu les arènes daal di dikk ci ki nga xamante ni moo war a jàkkaarloog ak euh, sax pour di ñëw ci ki nga xamante ni moo di Balla ba léegi Modou Lo n'est pas waa dana dóor waam parce que mhm. da koo daan deux fois ah waaw loolu ay waxam la mhm. parce que bëri nañ deux fois mu daan ko mhm. yaa ngi dégg mais nag terewul Modou comme lu ma waxoon laay wax rek Modou c'est le roi des arènes roi des arènes moo am parce que Eumeu Sène moom moo nekk roi des arènes Bombardier daan Balla Gaye nekk roi des arènes deuxième fois yaa ngi ñëw daan Bombardier Modou kon Modou c'est c'est le roi des arènes Balla nag am na droit ne ko doo sama roi parce que maa la daan deux yaa ngi dégg waaye loolu buñ ko toppee mhm. li olof naan wañ ñooy weex weex lay doon mhm. yaa ngi dégg parce mhm. que loolu moo di lan wañ ñooy weex weex mooy nga teg fi dóol yi ma ne la duma lii duma lii uh-huh. parce ñoom dañoo daanaan dañoo daanaan ndax tey Balla su waxee loolu ëllëg moom bu nekk roi des arènes ah uh-huh. Eumeu Sène waaw bu nekk roi Eumeu Sène mën na ko mën na suma roi dëgg la yaa ngi dégg ko mm-hmm. mm-hmm. te Balla xelam li ci nekkaat tey nekkaat roi des arènes. Mm-hmm. te dañu daanante ci seen biir. yaa ngi dégg mais daanante bi tey eh, eh, comme li ma la exemple bi ma la mën a jox rek. comme tey Ligue des champions bi passé. kan moo ko gagné du Chelsea. Chelsea yaa ngi dégg. Ah, am na équipe yi mu gagné pourtant am na équipe yi ko gagné. mais du tekki kan ña ko gagné. Mhm. day tax moom mu bañ a. am ah, titre des champions lay wax rek ci communication bataille de communication. Mhm. xam nga Balla maanaam ci làmb. non communication. daa daa war a wax la bu làmb jeexee. melu mhm. noonu parce que ñun mbër yëpp xam nañ leen ñun ñëpp ay borom xol yu baax lañ. mais Balla wax dëgg yàlla nit la koo xam ne boo ko fekkee hors làmb sax da naan est-ce que kii Balla gay. dëgg la par rapport ak kersa gi ngay fekk ci moom. da ngay naan da da nga naan sax kii du baax la quoi. du moom da nga naan du moom. mais nag bu dee ci làmb nag moom. Mm. wóob beneen nit lay doon ci baaji la ko doon <laughs> ba tey euh, les arènes daal di ñëw ci ki nga xamante ni moo di Papa Sow Papa Sow persiste et signe pourquoi j'ai juré de battre Siteu. li tax mu waat lay gën a leeral. waaw ah waaw moo xam la tax mu waat. Mm-hmm. waaw mag mu waxi waxam. xam naa la tax mu wax. xam naa la tax mu wax teg. Mm-hmm. kon la ñuy def mooy yónni yàgg rek xool ndax waatam yooyu. Mm-hmm. le premier da koy dëggal digganteem ak Siteu wala déet. waaw. waaw voilà euh, Babacar ñu daal di des ak euh, Vox Arena. démb ñu gis mu def lu rëy la ca diggante ca face à euh, conférence de presse bi nga xamante ni moom la kii doon amal Papa Sow Vox Arena daal di déployer tous les moyens qu'il faut daal di dem ànd ci ki nga xamante ni moo di Babacar ak le grand caméraman El Hadj. waaw mm-hmm. ak Abdou Salif. ak <laughs> fuñ la tuddee duñ ma tuddee ndax yaa kilifa. ba <laughs> <laughs> ñu ñëpp on est liggéey bi benn la. Mhm. li am solo daal démb mooy loolu moom ay vidéo la am na mhm. yeneen yoo xam ne sax yaakaar naa des mhm. nañu ko wanaat. ci Equivox TV. lépp jëm ji waajal. le premier août diggante Siteu ak Papa démb nag boo demee jama jàmbaar Wrestling Academy man la ma gën a impressionné mooy liggéey bi ñuy liggéey moom c'est professionnel vraiment man xam nga liggéey bi ñuy liggéey ci ñan laa ko maa ko gis d'habitude kon ça dire que c'est des professionnels. ñu teg ay polo nii. waaw entraîné mel ni mel ni ñoo. ak li ñuy ak équipement bi habillement bi set wecci waaw nga gis nga nga sportif buy entraîné dafa war ci cadre bu set. bu set bu baax. waaw parce que cadre bi ñu nekk baax na mooy bés yaaw ci côté géej gi yaa ngi dégg ni ñu organiser entraînement bi baax na li ñu sol set na. Mhm. ñun tamit boo leen xoolee kon da xam ne ñi vraiment. c'est des professionnels. affaire yi affaire yi organisé wu ñii di entraîner côté bii ñii di entraîner côté bii ñi nekk côté bële nga xamante ni boo jógee fii da ñëw fii ak ay ah. coach yu dynamique macha parce que coach yi ñoom ñooy teg programme bi. Mhm. ñoo naan leen li ngeen di liggéey li ngeen di liggéey. Mhm. te tey defe naa ne Balla Diouf tey fi mu jaar si làmb. Mhm. ak expérience bi mu xam. ah parce que Balla Diouf ñu bëri ñu foog ne Fass la njëkkee Balla Diouf jaar na Mermoz balaa Fass. yaa ngi dégg écurie eh, Mermoz mm-hmm. jot na am lu mu fa jot a def tuuti mm-hmm. mais yàggu fa nag dugg Fass mm-hmm. Fass nag la defe carrière am yépp li risque ci carrière am yépp écurie Fass la ko defee xëy jóge fa dem yoof Yoff jotu faa def lu kii après ci la arrêté presque ñëw nag tey ànd ak Papa Sow di liggéey ak ñoom Modou ñoom coach Souka ñoom Lato muy loo xam ne ni vraiment boo leen fekkee déet moom di nga xam ne nii c'est waaw organiser nañ seen bopp daal. te professionnalisme dëgg moo fa nekkoon. waaw na fa. Euh, ñu gis fa ki nga xamante ni moo war a jàkkaar moo war a euh, jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moo di euh, Tarkinda. Mama Lamine Mama Lamine. Garga de ñu gis ko mu nekk ci forme tamit macha allah. waaw parce que ñoom ñëpp boo leen dem Demba am koo ci gis ne entraîné wul. Mhm. mbër ya fa newoon Garga de. Mhm. macha allah mu ci forme bu leer. bu leer naññi. bu xool vidéo yi gis ko. Mhm. di nga xam ne kii mi ngi liggéey. loolu ñoom ñëpp ñu ngi ci liggéey bu doy doy waaye Babacar fa mu ki ma ci gën a jaaxal mooy ki nga xamante ni moo am ndam ci Tyson waaw Franc. waaw waaw sérieux rek. Franc Franc Franc Babacar démb démb dama koo gis dama koo waaw mu ànd ak forme bu ak cawarte goo xamante ni macha allah. xale la Franc mi ku ko tëggaloon combat suba suba mu dem bëri. xale la waaw. xale nag boo ci tolloo nekk sportif. Mhm. war nga war waroo ñëw ci milieu wala ci géew bi. Mhm. ñu naan amul dooleeg liggéeyu. Mhm. loolu bu ko gàcce lay doon. voilà Franc jeune la mu ngi entraîné macha allah teg na ko ci yoon kon loolu moo war a a feeñ ci yaramam. Mm-hmm. Mm. kon mbokk yi ñu leen jox dig daje incha allahu rabbi demee ak Babacar ak du Saliw ci Equivox TV di leen ñaanal jàmm yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm. waaye Babacar di santaat képp koo xamante ne mi ngi seetaan de près ou de loin di nuyu sénégalais yépp di wax ni Babacar. Mm. tey bu ñu taxawee fii. Mm. dañ koy sante suñu ñaari waajur. Babacar tey bu ñu taxawee fii dañ koy sant ki nga xamante ni moo di monsieur Seck Babacar tey bu ñu taxawee fii dañ koy sant ñi nga xamante ni ñooy jàpp ci combat ah. ndax Babacar nee naa leen bu fekkee chaque jour ñu feeñ te duñ sol yére bi ñu solaatoon nga xamante ni am na ñu nekk suñu gannaaw waaw ñooñu amuñu seen fay mhm. yàlla na seen jàmm yàgg inshallah way nag moom ah ñoom la yàlla dogal suñu ñëw àddina jaar si ñoom mhm. kon ñoom kenn du mhm. waaw suñu way jur bu jigéen yàlla na ko yàlla xare aljana mu ci suuf suñu way way jur góor bi fi nekk tamit yàlla na fi yàgg te wér amiin yow itam di ñaan say way jur amiin fi bu dee ñu si dunya mhm. yàlla nañ fi yàgg te wér amiin amiin Babacar amiin ñaan way jur yëpp di ñaan doomu aadama yëpp macha allah di nit moom amul lu dul way juram mhm. ñi ñuy jàppale tamit comme ni nga wax si abima bi amuñu seen fay yàlla na leen yàlla fay barke nabil moustapha sallallahu alayhi wa mhm. ma ciy cité ñu mel ni rek waa Petersen mhm. parce que ñu may jox yére bëri trop trop ñoom Babacar bu muut la ma ñoom Cheikh Lamba ñoom Jib Seen Aliou Sall taalibi sëñ Babacar si nekk marché Thiaroy ñu ñëpp maa leen di béggee di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi jàpp ci combat bi parce que tamit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 maanaa bu